Assalamualaikum mbokk internet yi ñu ngi leen di bu baax baax di leen ngeen dal jàmm sur sport 221 kuy gan ci page bi li ñuy ñaan rek mooy nga abonné nga activer cloche bi bu leen ko di fàtte dee leen like vraiment c'est très important. xibaar yi da koy tàmbalee foofee ci France club bi nga xam ne mooy Lyon bu ñu delloo ñaari weer ci ginnaaw kat ñoo jëloon foofee ci France actuellement kat ñu ngi. wane seen bopp ndax ñoom ñu ngi ci yoon bu muccaay bi mooy seen ñetteelu ndam bu tegloo ñu dalal Nice daan ko 1 bi à 0 ci bii bi nga ne dugal na ko la 22e minute jàpp leen loolee moo leen may ñu toog ci li nga ne mooy 11 place bi. foofee ci série A kon club bu Boulaye Dia biir mooy naa ñu ngi wéy di am jafe-jafe ndax dañ leen daan doxandu seen kaw Inter biir mooy leader daan leen ñeenti bal ci dara. Thuram mooy njëkk lakk caax à la dix-septième minute argentin bi mooy Martinez feelu ko à la dix-neuvième minute Dumfries à la quarantième minute ak kenn mooy Arnautovic voilà nag tëj bi yooyee à la quatre-vingt-dixième minute plus un. ci noonee nag kayitu xibaar yi taxaw na ci ñaari jour yi di doomu France bi nga mooy Marquis Thuram ak naataangu argentin benn moom mooy Lautaro Martinez. jàppaleen ñi ngi fësal kat ci saison bi ñoom kat ñi ngi lakk caax yi ndax ci ci li nga ne mooy seen ay jonte dugal nañ boo boole seen bi yëpp lay wax fanweeri bi ak ñett ñu amal fukk ak juróom benn passe décisive kon Inter ñooy solid leader foofee ci Italie ñu wéy la xibaar yi jàpp leen pour waajal li nga moom mooy jeux olympiques yi kon bala les Aigles du Mali ñoom kat dinañ amal ma si xaritoo ak waa Japon ñu jàpp ko sa 22 mars foofee ci Tokyo suñ gaynde biir sukk ñoom kat dañuy daanu jàppaleen biira Russie moom jël na seen revanche ndax suñ gaynde ñoo leen daanu ci mondial bi weesu juróom benn bal ci ñeent kat lañuy mujj daanu ka nga xam ne mooy seen coach sukat nee nañ wala dina jéem a le tir ce dimanche seen ñaareelu journée foofee ci Dubai Jurgen Klopp foofee ci Angleterre moom lañ tab entraîneur bi gën a xarañ ci mois bu janvier bi de même bi portugais Jota aussi mooy jor bi gën a xarañ Léegi Liverpool kat ñu ci dynamique wala boog yoon bu mucc aip. et eh, que ñi ngi fësal kat eh, voilà kenn mooy sabi Alonso nee nañ buñ mayul kat buy quitté foofee ca Bayer Leverkusen voilà dina utali foofee ca Liverpool wala foofee ca Liverpool plutôt que muy dem foofee ca Bayern bi nga xam ne ñoom kat dañu am wóolute ci ka nga xam ne mooy Tuchel naam ñu ngi ciy jafe-jafe. ca kenn mooy Sebastian Haller xam ngeen ne dafa. dafa ñëw ñu teeru ko bu baax waaye liñ fësalkat mooy dafa amay gaañu gaañu voilà final bi nga xam ne moom la doxal contre Nigéria ko jëlee ba tax dina toog ay semaines yu bëri ndax liñ naan entorse ci cheville bi moom la amee Arda de nag nee kat buñ mayul kat la saison prochaine mën nañ ko abale mu plus de temps de jeu waaye club ba nga xam ne fan lañ koy abale nag buñ soxandikoo ci relevo fësalaguñ ko et que ki nga mooy kat. ginnaaw gi bañ fësale xibaar bi dina quitté foofee ca Paris moom kat tàggatu na yenn ci ay coéquipiers wala sax ay coéquipiers ne kat moom jël na ndogal boobee dafay quitté club boobee au mois de juin en tant que agent libre et que ñu ngi fësal ci këyitu xibaar bu ci mën ni markaar ki nga xam ne moom mooy Kylian Mbappé. ak dirigeant yu merengue ku ci mel ni Florentino Pérez balaa ñi ngi amal ay jëkkoo wala ñi ngi amal ay jokkoo moom kat xibaar na leen kat moom nag jël na ndogal dafay quitté Paris kon kat voilà mu ngi cay tànk yu leer comme ni mu ko daan waxee clubam de rêve foofee ci Real de Madrid ki nga xam ne moom mooy. balaa mooy Luis Enrique muy laaj petit frère am bi nga xam ne mooy Ethan Mbappé mu nekk ndax kat da ngay topp say tànku mag ndax moom dina fa gitee waaye kat Ethan Mbappé lim ko tontu mooy que man dafay damay desandi foofee ca Paris. et que Paris Saint-Germain xam nañ ne Mbappé dafay dem ci noonee kat ñi ngi préparé ay koppar yu takk lu jege wala lu ëpp 200 millions d'euros bu ko defee ñu mën a jënd kenn mooy Osimhen naam xaatimaan contrat mën nañ la nga xam ne mooy close. Claude Deschamps wala boo Claude Deschamps bi nga xam ne Bobe la moom la xaatim club italien boobee yamuñu foofee dañuy desene ci Italie ndax kenn mooy Leao aussi voilà ñu ngi koy piis ay bët na kat bëgg nañ ko boole ko ci mane yam foofee seen milieu jàppale nañ ko bëgg renforcer ko ci mane Kimmich ak Gavi lim nañ ko waaye kat kii nga xam ne moom mooy Xavi moom garantiru benn nga ndawam am na kat chance naan dafay tëdd ci parité doxal kon lim gis kat mu dese ni foofee ndax moom seen tunóokakat mu doon ña nga xam ne ñooy doon capitaine club ba mooy que ci ëllëgu foofee ca Barça et que ñi ngi fësal ci géeju xibaar yi voilà nag Paris bu ko ñëw yem foofee ku ci mën ne yoro maa ngi doxal ci Lille aussi ñu ngi ci ay tànk yu leer leer pour mën koo dalal. ñu ngi bëgg ay dalal ay joueurs waaye dañuy sécuriser yenn seeni ay joueurs moom benn benn yaakaar dëgg la muy Warren Zaïre-Emery voilà nag saabu Sabour Sabour soxna ko ci Fabrizio Romano moom kat di ndaw français boobee dina xaatimaat contrat. PDG bu Inter bi mooy Marotta moom mi nga xam ne voilà mi ngi àddu ca Lautaro Martinez ñi ngi doon fësal ne aussi Paris mu ngi koy mu ngi koy bàyyi ay gët ci noonee moom kat mu ne voilà ñoom inquiété ñu amuñu benn njàqare kat naan Paris bëgg na ko wala boog bëgg ko ci noonee ñoom kat ñu ngi ci yoon bu leer aussi am yaakaar ne aussi dina amal accord ci lu mu yàggul dara mu mën a wéy avec les yi Pochettino ci kar mooy Cole moom nag mu ne mi ngi fàttali ko bañ koy recruter. benn ci membre personnel bu club bi waxoon na ko kat kii nga xam ne ma ngay bawoo ca Manchester voilà nag euh, da kay jox benn jour bi dafa am talent brésilien wala boog argentin ndax kat moom ni muy adapté voilà dafa gaaw lool et que ma ngi koy wane foofee ci Chelsea. waaye xibaar bi neexul ginnaaw gi Alexandro Arnold ba mu amee gaañu gaañu Liverpool kat voilà Aris war nañ beneen blessure ki nga ne mooy Alisson Alisson Beck moom dañoo fësal dafa amee gaañu gaañu ci issue Zambie bi jàpp leen buñ moyul dina raté final bu Carabao Cup bi. et que pour rappel aussi ki nga mooy Szoboszlai moom aussi mi ngi à l'infirmerie mooy kat dafa amee gaañu gaañu 11 poste ko gulu moom mi nga xam ne kat. mi ngi fësal voilà nag en conférence de presse dañ doon fësal naan kat voilà dina utule ci Liverpool moom kat daneen rey sax loolee la njëkk a def waaye li leer ba leer mu ne kat dafay desandi foofee ci Tottenham wéyle liggéey bi. club bi ngeen mooy Brighton nag ñoom kat ñi ngi ñi ngi waajal kat benn départ ki ngeen mooy Roberto De Zerbi technicien italien boobee club yu bari ñu ngi ci am nag ci noonee kat voilà nag ñu ngi nas ay pay kan moo ko war wuutu bu ñu soxandikoo ci Zamer bu fekkee dafay club boobee di Brighton. Wolverhampton mën nañ jaay seen doomu portugais benn mooy Pedro Neto cet été club yi xam ne bëgg nañ ko bu ñu soxandikoo gisal seen muy Arsenal Manchester United wala bokk Tottenham. Frenkie de ndax mu dafay quitté foofee ci Barça moom mi ngeen mooy savikat ya, yéy na ci yàb bi mu nekkat eh, doomu néerlandais boobu benn jeu de classe mondiale eh. la mu ne du waxtu bu baax bi nag pour ñu mën a wax ci loolee waaye li leer ba leer moom ak clubkat dinañ toog ci table kat waxtaanee li nga xam ne mooy dafay desandi wala bokk dañ koy jaay ek ñi ngi fësal ci kii xibaar ki nga xam ne mooy sa boy bi nga xam ne jàpp leen Bayern moo ko jëndee mu moo ko jënd mu ut mu bawoo foofee ca Galatasaray moom kat jot naa doxal ay match waaye dafa amee gaañu gaañ doomu français boobee liñ naan euh, tension aux yu bëri laata mu ñëwaat ci jonte ginnaaw ba ñu éliminé ci li nga xam ne kat mooy huitième de finale bi. Maroc wala boog pays arabe comme mu ne vraiment nag li ngeen mooy manta bi de sonal lool ci ay ndawam waaye aussi àdduna ca la nga xam ne mooy climat bi ndax climat bi nee nañ kat ñoom alerté wuñu bu baax a baax ci atmosphère foofee ca foo fee ca Côte d'Ivoire ndax humidité bi voilà mucc la woon ay dara pour ay ndawam. ñu àddu ci ki nga xam ne mooy Lamine Camara ak Arouna Sangate moom kat nee nañ ay club yu primaire yu mag a mag ñi ci ginnaawam. waaye ki ngeen mooy Lamine Camara ñi ngi fësal ginnaaw gi Chelsea aussi Man City ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax loolee voilà dinañ leen ko toppal ndax kat club eh, anglais yooyu am nañ voilà nag eh, xarañteef bi nga mën na leen may ñu transfert benn jour et que bu demee foofee Manchester City voilà wala boog Chelsea waaye Manchester City ku xam Pep Guardiola xam nga ne voilà un fin tacticien la dafay transformer jour voilà nag mën na ko teg ci yoon bu baax bu ko defee talent bi nga xam ne moo nekk ci moom ñaam ñu bëri xam nañ ko waaye voilà mu gën ko kon loolee kat ñu ñaanal ko lépp mën a antu waaye lu ci leer ba lee xam nañu Barça voilà du tee ka nga xam ne mooy Lamine Camara ndax temps bi nekk ci moom ñoom club la bi nga xam ne voilà nag jour bu fa doxalee un an mu wane boppam du ko on se rappelle bien le cas de Pape Matar bañ koy jënd tot tonam ñu bëri vraiment séptigoon nañ ndax ya kan. ndax dina mën adapté wu ak li nga xam ne moom mooy foofee ci Prime League un eh, jeu vraiment yamdagi aray o duel vraiment jeu physique way on a vu que Pape Matar Sarr que voilà c'est adapté et kami gone bopam lolé lañuy ñaan ka nga xamné moy Lamine Camara et que bu démé ci Manchester City pourquoi pas ka nga xamné Pep Guardiola def ko benn jour bi nga xamné voilà dina gis un jour de classe mondiale gaay ñemal fofu xibaar ji leen jaajëfal ba benen yoon sur sport 221